asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox tamit nuyoow président Ousmane Sonko ak mboolem ñi mu àndal yaakaar naa ni ah, tey lii ñuy def dara ëpp ko solo ndax boroom bés bi dafa jox dundam yépp réew mi mënuma fi wax lu weesu lii samay wayjur ak samay mag wax nga xam ne daanaka bu ñu waxee rekk ku mel ni doyen Habib ak mama Aïda Mbodj doyoon na sëkk parce que ñoom ñooy suñu lépp waaye dafa fekk ne donte ay ndaw lañu dañu màgg di suivre euh, El Hadji Sidi Lamine Niass moo xam ci émission wu fajar yi moo xam ci diineeg jamono waaye moo xam saa yu askan yu masaa soxla mu taxaw jiitu ci rafle nañu ko nag mën naa ko wax ndax su ngeen seetloo saa yu jamono naqare ci réew mi ginnaaw vidéo wu maam Abdoul Aziz da baax moom ay vidéo am ngeen di gis ñu koy dagg di ko dugal loolu day firndeel ni xëy na ci livre bi prémonition yi ñuy wax moom yàgg na ko def te lii ñuy dund ci jamono yi avertiroon nañu ci lu leer naññ ca njëlbeen ka loolu nag nitu yàlla moo ko mën moo tax dañ koy ñaanal ah yàlla gën a yokk yërmandeem waaye gën ko taxawu ci njaboot gi te njaboot gi nag wax fa dëgg yàlla lii nga xam ne téye nañ ko mi leg bi dañ koo gën a ñoŋal ndax gis nañ fi ñoo xam ne bu ñu demee xëy na seen héritage neneen lay mujjee mais bi Cheikh ñëwee maintenir équipe bi promouvoir leen lañ xamoo ne dina am résultat mais li ci ëpp solo mooy lii góor gu baax gi doon wax naan askan wi rek mooy seen patron loolu la ñu maintenir moo tax Walf saa yu bëtam xonkee askan wi jóg li muy firndeel nag mooy féeteeg askan wi rek moo am solo xam ngeen lu tax ñii xalab Walf tey dañ ko doon gërëm démb ñii gërëm Walf tey mën naa am dañ koy xalab suba mais li ëpp solo mooy mu garder ligne am féeteeg askan wi boo nekk boo fi nekkee ngir askan wi dinga nga dajeeg ci bëgg-bëggu askan wi boo ñëwee nekk fi ngir sa bopp wala ngir leneen di nga jàmmaarloog Walf ndax day taxaw ci bëgg-bëggu askan wi te loolu mooy li am solo moo tax ñu leen di ñaanal groupe bi gën fi yàgg gën fi bari doole ndax xam nañ ne xeex baa ngi fi lépp a ngi fi waaye askan waa ngi fi te tànk askan waa ngi fi ñàkku leen dara di leen indil encore une fois nuyoo mbooleem bureau politique bu Pastef ndax ñoom ñëpp xëy na dañu nekk ci ay yitte moo tax ñëwuñu waaye li ëpp solo mooy saa yu Walf soxlaa ni askan wi jóge noonu la Pastef ak ñi mu àndal di jógee ndax dañu jàpp ne ñun ñëpp askan wi lañ fi nekkal ñu ngi leen sant di leen gërëm. tous les jours chaque fois qu'il y avait des il me téléphonait pour me dire. je te félicite parce que tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as dit ça. Et continue comme ça. Surtout quand euh, le, notre mandat est terminé et que le pouvoir exécutif avait voulu proroger notre mandat et que mes amis de mon parti, on avait dit, on était élus, l'exécutif ne peut pas prolonger, prolonger le truc. Ils vont téléphoner aussitôt pour me féliciter. Ceci dit, le temps passe, je ne peux pas parler trop longtemps. Mais je citerai au moins, j'approuverai au moins ce que mon prédécesseur a dit à propos de Cheikh Oussarif. Cette histoire fait partie de ce qui me fait dire que Sidi Lamignas était un homme courageux. Il ne cherche pas à savoir là où pensent les gens pour les suivre. Il avait, lui, sa direction personnelle. Et Quand j'allais Gambie à l'époque, pour raison professionnelle, on m'a dit seen Sidi Lamine Niass boobu moom moom daal xam naa ne daal lu ñu wax mooy di ko ma ne leen Sidi c'est un homme qui croit en croit On ne peut pas l'embarquer dans des histoires à dormir debout. La preuve, ceux qui prenaient Cheikh Ousseyn pour un Père se sont vite. Euh, euh, rectifié. Autre chose, lorsque il a été question de construire une église à Tivaouane, Sidi Lamine a été, je ne sais pas si c'était le seul, mais en tout cas, c'était le seul que j'ai entendu s'élever pour dire le Sénégal étant un pays laïque, aucun aucune personne n'a le droit d'interdire à des croyants d'une autre religion de, de, de, de, construire leur lieu de culte. Et là également, les gens disaient, mais c'est une truc qui, wow, voyez mon, julit lam lan la. Ma ne leen c'est un julit éclairé. Et si tous nos chefs religieux étaient comme, comme lui, le Sénégal vivrait en paix sur le plan religieux. Il n'y aurait pas de problème entre Mourid, ou bien catholique ou ceci, cela, parce que tout le monde croit en la même chose et ils savent ce que c'est croire. Lui, il savait ce que c'était croire. Sidi, je vous dis, il me téléphonait souvent, pas toujours pour vous féliciter peut-être, Parce que quand j'étais étudiant, déjà on avait des rapports. Souvent, ils me téléphonaient pour me dire attention, de les de Mais surtout après, ils m'ont appelé pour me dire je te félicite. J'ai entendu ce que tu as dit à l'Assemblée nationale, etc. etc. Et c'est pourquoi, quand euh, le pouvoir de Diouf est tombé et que le nouveau pouvoir était installé, on avait dit que le Walfadjiri, le pouvoir, le pouvoir Wad va acheter Walfadjiri. Et j'avais sorti aussitôt un papier qui a été publié dans Walfadjiri en disant si, si vous le faites, ce sera la plus grosse bêtise qui sera. Il me téléphone, il me dit, il me dit ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, sois tranquille, Walfadjiri me survivra. Walfadjri me survivra. Vous avez ce qui s'est passé. j'ai pas l'impression que Walfadjri fait un seul pas en arrière. Au contraire, il avance. Et j'encourage ceux qui dirigent Walfadjri de continuer à le faire dans le style avec lequel ils le font. Ils pas et le pays gagnera. Je vous remercie. Merci, maître. Alors nous avons largement dépassé le temps et nous allons euh,